asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 7 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne moom moo di suñu lamb moom tey fi mu xëy ñëwati ci mbirum CNG ak njiit la ak na mu war a doxee comme ca séqal waxtaan nag du kenn ku dul ki nga xam ne mooy entraîneur écurie Ndakaaru wala muy fondateur ba di Amadou Kati Diop Kati nag moom la mu xëy di wax mbirum fédération daal la jàpp ne lu war a mën a nekk la li nga xam ne nii moom la Kati Diop gis yamu ca jàpp na ne Matar ba tamit xëy na mën na tànn ki nga xam ne moo di Mohamed Ndaw wala Tafa Gueye loolu mooy ay waxam moom Amadou Kati Diop keneen koo xam ne ni moom mooy magu promoteur yi di Gaston Mbengue moom moom ñëw na ca mbir mooma wax ca nee moom daal bu amee lenn loo xam ne moom lay reproché Alioune Sarr wala loo xam ni daal lu a naqaril ca moom xanaa kay yàgg gi mu fi yàgg waaye bu xam ne mu ngi koy reproché nga xam ne moo nga xam ne moo jiite lamb ji ba fii te nga xam ne nag moom la Gaston Mbengue seqaloon lamb wala mu joxoon ko avance ngir fas yéene mu bëreel ko muy Gris Bordeaux moom itam xëy na di wax nee na ko yow Gaston day jàpp jàppal ne sama diggante ak yow moom jàppal na boobu contrat moom jeex na maanaam mbir la moo xam ne daal am moom defatu ko yëglikaay bi di sunu làmb xëy wax nu ko giri yemu ca terewut nag moom giri Bordeaux mu ngay xamal Balla Gaye di ak ña àndal ne ko sama combat ak yow moom mënta ñàkk faw day am xanaa kay keneen a koy tëgg waaye ne maag Balla moom ne na sunu combat leen gënu koo doon lamb ci lamb ji wala danse loolu la giri Bordeaux xëy tey ñëw di ko wax leneen bi daa jàpp ne daal ren boo bëggee dégg dëgg moom joowuñu gaal gumbewuñu ndax la ko waral mooy résultat ya nga xam ne moom la am moo baaxul trois victoires deux défaites daal la yëglikaay bi nee na moom la waa lébu gi indi def ko ci li nga xam ne mooy seen résultat moo tax yëglikaay bi jàpp ne day écru lébu gi moom ren doxlewuñu dara dara dara yëglikaay bi ne ki nga xam ne moo di ama neex moom daa mel ni gars yi dañ koo fàtte gàmmu géy coronavirus ba moo ko freiné ndax dafa waroon a bëre bañ ne suba lay bëre rek corona ba ñëw ñu lépp loo xam ne ay yëngu-yëngu la papa yadd moom suñu borom bi ñëw jël ko moom kon ñu ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana ba tey gaaroo gaar itam daal dafa mel ni itam moom itam yëglikaay bi ñëw na ci gi moom ren moom seeni mbir soo bëggee dégg-dëgg moom dox defu ko sa Samb ma nga xam ne nag mooy coach su Lebu gi moom mu ngay wax ne na daal li nga xam ne nii moom moo seen ay plan yi ñu amoon yépp maanaam boo bëggee dégg-dëgg dafa tàbb ca ndox ma maanaam daal di yàqu loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey ñëw xamal nu ko buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point net mu mel ni ki Leewtoo point moom boo bëggee dégg-dëgg demaloon nañ kër xam ne ñoom lañ àndaloon doon former ay mbër ay weer ngir ñu nekk ay garde rapproché mu leen doon jox mel ni ki diplôme ya yemuñu ca ndax ca jamono jooju am na fi ñetti mbër yoo xam ne daal waa ONFP jël nañ leen léegi nag ñu am ay salaire nga xam ne moom la ñuy wooyee professeur de l'arène nekk ca Lansar amaa ndaw ba nekk fa nga xam ne moo di mooy caatu yaraax bu yaraax ñett ñi moom boo bëggee dëgg-dëgg maanaam daal ñoom seeni mbir neex na ndax nag jëlee nañ ba tey bu ñu continuer fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo dañuy dem ca Leewtoo TV mel ni kon foofa moom ku yebu xaar fa ka nga xam ne moo di Lamine Jong moom itam daal ñu doon ko wax soo technique mu nekkoon mbër nekkoon ci lamb ji doon bëri léegi nag ne na promoteur immobilier waaye yemu ca de la mu bëgg daal moo ñu jox ko CNC bi mu jiiti wala muy Keba Kanté ne na maag ñoom duñu sax benn duma ci moromam kenn te la ma mën ci làmb ji mënuñu ko ci tey suba waxi noppi moom loola la wax moom soo technique mel ni kon loola itam ko yeboo xaar ko fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom tey ab gëstu la xëy gëstu ma nag du fenn furul écurie Fass bi nga xam ne jàpp na ne ay ata ngi nii wala ay maanaam daal saa su ne ñu ci ay coow ay jàppal bàyyi ay ay dem ak ay toog ay xuloo te yëglikaay bi na teewul bi moom di dund saa su ne nag la xëy tañ samp ci ab laaj fàttali nañu ay coow yoo xam ne am na fa demukati Jóob ak ñoom Papa Sow ak Rong Mbalax ak Zallo ak ñeneen ñoo xam ne ay ñoom Balla Juuf ak ay Boy Naar ak ba a xëy sampal ñu boobu laaj moom record mbay sat Diop ma nga xam ne nag ab journaliste sportif la moom nekk ministère des sports la mu ca xam ne daal nee li am ba des écrit fax ne loolu li ko ko may mooy lenn rek la écrit la boo xam ne bañ ko sancee yàgg na te am solo xëy na la loolu moo tax écrit bi ba tey muy taxaw waaye nag jàpp na ne daal faw ñu gën a jóge ci wàllum informel bi gën a jëm ca formel maanaam daal gën a personnaliser la ñuy def ki nga xam ne moo di Père Birahim a moom itam lu mel mel noonu la wax ne na daal écrit la boo xam ne moom nan ko fondement yam maanaam sanc ba moo baax ak ña fa jaar moo xam ni ko maam góor gi muy maam góor gi njaay di mbay géey ñoom mbiitaag ñeneen ña des moo tax booy kayre jàpp ne day écrit la boo xam ne moom coow yi mën na fay am waaye pour mu suulu nee lu jafe-jafe lay doon loolu ci record lañ koy fekk ba tey bu ñu continuer ci record Seexu Juuf moom ren ci lamb simple ji lam ca jot a def yëglikaay bi ñëw na ci moom ak six drapeau yoo xam ne gagné na ko maanaam juróom benn drapeau ak un million cent mille francs ak fukki nag ak ñett maanaam treize ba loolu daal la jot a gagné ren mel ni kon daal moom mu ngay sant daal moom ci loolu nga xam ne jot na ko gagné reen ci yëglikaay bi record na mu xëy tey ñëw waxe na ko waaye dama fay jóge nag delluwaat fa nga xam ne moo di sunu làmb ak ki nga xam ne moo di ko Nicolas yëglikaay bi mu ngi xamal ca tuusee ne daal signé na ab contrat ak ñi xam ne ñoo di waa Bantamba TV ba nga xam ne ab télé la boo xam ne Bécaye Mbaye moo ko di ko doxal waaye leneen loo xam ne nii moom wala keneen koo xam ne daan doxal ba waa géejawaay ràññee ko wala waa réew mi ak waa làmb ji mel ni ki nag sunu borom bi moo ñëw ak ab dogalam ko muy Daouda Seck ma nga xam ne mooy bu géejawaay Daouda Seck mi nga xam ne ku ne xam na ko yëglikaay bi na lépp lu yëngatu ca géejawaay moo xam politique ba la ba ci ji fu ci nekk daan nga ko gis mu taxaw fa taxaw waa géejawaay mel ni ki nag suñu borom bi moo ko jël démb ci kàttanam ak sañ-sañam kon ñu ñaanal a Seck yàlla yërëm ko jéggal ko di ko jàll waa géejawaay yépp rawatina mbër ya ku mel ni Balla Gaye numéro 2 Lac de Guiers guy gi ak képp koo xam ne yaa nga biir géejawaay di yëngutu ñu la koy jàll yàgg mar yal na ko yàlla yërëm taxaree ko aljana àddina moo tëdde noonu asalaamaaleykum mbokki suuf Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax namoon nañ leen weekend bi yàgg na loolu taw bi bëri na ndox bi bëri na ñuy màssawu képp koo xam ne rek euh, euh, mënd bi sonal na la ak euh, ndox bu bëri bi leen ñaanal gaaw saafara lépp li nga xam ne nii mooy problème muy ànd ak eh, bi comme ni ñu koy defee chaque jour di nuyu sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la fay naa la Aïssatou Faye madame Niang di la nuyu di di la ñaanal jàmm yow tamit comme ni nga ko waxee di nuyu sénégalais yépp comme ni ñu ko waxee rek ak Leewtoo TV du mën a ñàkk la 100 pour cent lamb lañ fiy dund mais ni ñu ko waxee tamit noonu lañ koy waxee masawu sénégalais yi mhm. ci lan ci mbënd mi nga xam ne dogalam moom moom tawam mm. te itam taw moom lu mën te xew lu baax a baax la waaye nag xëy na daf des fois am na foo xam ne bu fa kiyee mën na indi ay yàqu-yàqu encore une rek di gën a sensibiliser nit ñi ci fi ñuy jënd kër yi ay sa jar nañu xool des fois gars yi profité la jaay la kër foo xam ne aw xur la wala ab dex la après bu taw bi bëree dex nga yeewu nga ñàkk sa kër kon defe naa ne du force dama war a dëkk Dakar wala dama war a dëkk Thiès non non Sénégal yaatu na waaw nañu xool suuf suuf yu baax yi ñu dem jënd fa kër même bu soree Dakar sax te mu leer na sa kër dina ñoŋ hmm. moo gën quoi mais di ma saw ñëpp di ñaa jaale tamit ñi ci faatu hmm. yàlla leen yàlla jéggal xareen aljana hmm. suñu autorité tamit suñu autorité yi li ngay digg ci ay milliards na def nañ affaire yi day mel ni fii cent francs dem doy na seen bopp bu baax a baax autorités yi nga xam ne ñoom ñoo yore réew mi parce que am na loo xam ne du mbiru maire mais mbiru état la mm-hmm. voilà waaw Babacar ci loolu la ñuy duggee ci waxtaan bi dem euh, ci lamb ji euh, ñu dem euh, seeti Kati Diop suñu papa Kati Diop moom nag ñëw na ci CNG bi nee na que ñu jox ko Tafa Gueye que ñu jox ko Tyson lu ñoom ñaar ñëpp lu war a mën a nekk la waaw loolu da Amadou Kati Diop moo ko wax moom defe naa ne ku ne xam na ko ci làmb international parce que def na nationale bëri na lutte avec Fra sa ci réew mi xam nga lutte olympique yooyu yëpp def ko formé Tafa Gueye boog nekkoon entraîneur bi mu ne ay gloire dëgg-dëgg jóge fa sànce Gris Dakar te ku ne xam ne Gris Dakar ni mu mel ndax Yaxya mhm. naa ne a bu fekkee seen compétence mate na ko seen xam-xam mate na ko te ñuy joxe wóolu nañ leen te leer na leen ñoom suñu leen joxee dinañ doxal pour man suñu leen joxee tam dara newu ci waaye li may wax daal mooy nañu moytoo daal jox koo xam ne wóor na ko ne mënta doxal wala mu wóor la yow Aïssatou Faye ne leer na lii ñu lay yox <laughs> Aïssatou bu ñu la kaay nga togg ceebu jën te mu leer na yow mënoo togg sa suuf bi noo bu ca dugg balaa la ci coow di fekk <laughs> waaw ba tey ji coow euh, CNG bi Babacar ñu dem euh, Leewtoo point Leewtoo TV nga fekk fa Lamine Diong moom tamit ñëwaat na ci ci sunu xam ne mooy CNG bi Matar Ba dina ko dénk ku xam jàngoroy mu mel ni moom Lamine Diong ko xam ci zoo technique muy mbër boo xam ne da daan bëre ba tey yàlla def mu bàyyi lamb ak fu ne li mu xam ne nag moom moo ne buñ ko ko dénkee mbir yi moom dinañ ko dénk ko xam làmb ko xam jàngoro ji parce que génne nay document lu jëm ci anciens gloires yi <laughs> entraîneurs yi arbitres yi supporters yi amateurs yi bu ci ne am na ci point yoo xam ne bind na ko ba teg ko ngir fas ko yéenee doxalee waaye nag jàngat ba teg waaye li ci li ci li ci li li ñu daan c'est dommage mooy que ni bi du ay vote mataar moom mooy choisir waaw loolu rek moom ma ci xaw a jaaxal man <laughs> waaye nag ah, lii itam am na solo parce que euh, lu lu baax la parce que lii day wane ne que ni sénégalais yi am na ñoo xam ne tey pare nañ pour diriger li nga xam ne moom mooy lamb ji doxal ko quoi <laughs> uh-huh. waaw euh, Babacar ba tey ñu des ci lamb ji ak euh, combat Gris Bordeaux Balla Gaye mm-hmm. ba léegi ñi ngi déglu ña mbër yi ko seq mais Gris Bordeaux daal nee na diggante mag Balla Gaye nekk na loo xam ne mënut a ñàkk faaw mu am waaw diggante mag Balla mënta ñàkk waaye daal li li am ba des daal moom daa mel ni bu dee ci diggante mag Gaston Mbengue la moom daa ni foofa. nee na ko combat. maanaam seet waaw nee seqatuñ dara waaye combat bee daal mënta ñàkk. <laughs> kon xanaa loolu mooy ne ko beneen promoteur ñëw tëgg. ah li ma si jaaxal Balla mi nekk ca Gaston day ma ci jaaxal. waaw te Aziz Ndiaye moom nee na ñoom Gaston ñu nga ca ah, Gaston te kookaa yor Balla. Ah. kon nag dina ma jaaxal xanaa. dina est-ce que Gidé Gaston duñu waxtaan rek. nga Babacar ndéeroo amul ñàkk waxtaan a am. waaw gëm naa ne tey bu ñu leen toogalee war nañu am solution. no moo war a am sax parce que li mu wax rek ñoom ñaar ñëpp ay responsable lañ ay kilifa lañ nañu toog waxtaan continuer. moo gën quoi. mu nekk jàmmu làmb moo gën moo gën. Uh-huh. voilà ba tey si lamb gi waa association FILS ñoom nag euh, ñoo àndoon nag euh, ONFP Babacar. Mm-hmm. boo demee ci Leewtoo point net fekk ko fa fekk ko ci Leewtoo TV. Mm-hmm. demee suñu lamb tam ñëw tam ñëw nañ ci ñu ñëw nag euh, formé 20 mbër daal leen formé en technique de garde rapprochée ba ONFP nag jël si ñetti mbër. embauché leen nee na tey jii lundi lañ fa war a dem daal di signé seen i contrat def lépp loo xam ne mooy paparas muy Tidiane Faye Ama Ndaw ak Caatu Yaraax waaw muy lu ama am solo muy loo xam ne ñu ciy nuyu ku mel ni Bamba mbub ak kuréel yi mu àndal yépp muy waa FIS ak waa ONFP mu mel ni nit ki tamit euh, boo bëgg nekkee ci réew da ngay am looy contribuer pour réew mi mm-hmm. te gis nañ ne Bamba Mbuub am na taxawaay bam ndax Italie la nekkoon di fa liggéey liggéeyam mm-hmm. yëngutu fa bu baax a baax ñëw tey Sénégal jël ay mbër ànd ak waa ONFP organisation nationale de de formation professionnelle. Mhm. ñuy former ay mbër pour garder rapproché ba tey mbër ya def ko ba mu jeexoon ñu war a jox seen ay diplôme doon ko def samedi fa nga xam ne mooy ca miir géej wala boog àjjuma ñu jox leen ko ñu xool mbër a performant ñuy ñett muy Tidiane Faye bu Lamsar Ama Ndaw les Tigres ak Caatu Yarax bu Yarax ñu jël leen fas yéene nag xam ne mooy ONFP ñu commencé tey pour def seen mel ni kon loolu daal daa mel ni loolu lu ama am solo la parce que nag euh, kon kon lu ma mën a wax daal mooy Bamba Mboup ñu ngi ko naan jaaraama ci xalaat boobu mu am ak itam état bi nga xam ne ñëw nañ jàppale ko ci pour que loolu mu mën ko réussir. Mhm. waaw Babacar euh, ñiy ñi nga xam ne dama nekk ñu ko woon que ñetti mbëri ni ñu leen tànnee. Mhm. tànnuñu leen ci yaama neex. Mhm. dañoo de seen formateur moo génne seen i notes. mu xool ñu ne deux premiers yi la ñu waroon jël. mais ci biir waxtaan Babacar ci lañ gis ni euh, deuxième bi dafa ex aequo kon directeur b nag mu ne du du tas yaakaar du def dara day def trois personnes. waaw loolu mooy yoon parce que ñëw ne daf leen a tànn parce que ñi leen doon formé ay professionnel lañu. Mhm. formé nañu leen gis nañ ñu performant lañ ci bu doon composition ñoom ñooy nekk premier deuxième ak troisième. Tidiane moo jël pay. waaw amal na caatu yaraax execo deuxième. voilà kon foofu mënoo jël kii bàyyi kii kon li nga mën a def mooy jël ñaar ñi execo premier ba moom raw na. Mhm. parce que moom dem na kon defe naa loolu waa ONFP def tamit lu am ci saison bi ñu jógee ak ñaari défaite bi muy cinq combats rek. muy lu méttee métti ah lébu gi waaw comme feccuñu comme ni ñu ko wax waaye tamit defe naa lébu gi sax ren moom. Mm-hmm. li gën a métti ci ñoom. wala bëree daan mais li gën a métti ci ñoom mooy espoir bu ñu amoon ci moom mm-hmm. yaakaar muy Papa Yade yàlla jël ko defe naa ne mm-hmm. loolu ñoom bu ñu sañoon équipe ba mbër yëpp daanu te Papa Yade nekk fi ak ñoom mais nag heureuse malheureusement yàlla moom mooy dogal kon ñu leen koy jàllewaat rek di wax ne kon xëy na déwén si kàttanu yàlla suñu dikkaate ak xale a mën a liggéey parce que làmb ji jeexagul waaw Babacar dañuy jógee fële ca sunu lomb dem record fekk fa ab Ndour ab nduur tam ñëw tey ci écurie Fass ndax coow li day bëri tout le temps nee na Fass nag toujours coow li dina bëri dina yëngatu mais daal. kenn du ko suul. waaw du suulu daal. <laughs> Ah, ak lu coow li bëri bëri loolu la bëgg gis bëri ah. waaw mu mel ni kon loolu li koy wane mooy comme ni ko ni ma gis ay nit wax ko loolu lu ma si mën a wax mooy écrit bu mag la. Mhm. écrit la boo nga xam ne defe naa ci lu ma xam wala ci li ñu jàpp mooy écrit bu ñu njëkk a sos. Mhm. mu taxaw administrativement. Mhm. mbër ma fa nekk itam jëkk a fayeeku muy mbéy gay kon écrit la boo xam ne.

lu mu mën a doon. Mhm. waaw ba tey ñu ñëw ci ak kilifaas ba tey Mbaye Jacques Diané ñu ngi joxe xalaatam Birame Ndiaye ak Boy Kairé ñoom ñëpp ñëw nañ ci li nga liñ jàpp moom rek baras boo xoolee ñoom ñett ku ci ne li nga wax ak li sa morom wax presque benn la force bi jàpp nañ ne écurie bu ñu yàgg sos la ay boroomu xel di ko saytu ba pare itam la fa jaar ci ay mbër bëri na bëri waay boo xam ne nii moo xam ñoom Mbaye Guèye la ay maam góor gi Mbiita Njaay faga faga deux ba ci ñoom tafaa Guèye ñoom ñëpp ku ci ne muy kat muy ki nga xam ne moom mooy euh, safurla muy Père Biraay muy Mbaye Zak muy Boy Kairé ku ci ne loolu nga jàpp ne xëy na loolu bokk na ci li ko téye ak ñi nga xam ne ñoo ko jàpp parce que muy booy muy kat yi mi wala kii boog Père Birahim wala Boy Kayre defe naa ku ci na ku ci na xam nga ne ñoom ñi ay ancien wu Fass lañu te ñoom jóge nañu fa forme ay école te réewul écurie Fass ba tey di existé kon ça veut dire am na lu téye écurie bi ba tey quoi waaw Babacar ñu jeexal ak le bilan de comme ni ko Aby di andee chaque jour ak euh, benn mbër mm-hmm. tey nag euh, Cheikh Diouf la andi moom nag euh, ci six drapeaux la ko am un million dix mille francs ak treize bër mu nekk loo xam ne tamit baax na waaw non macha allah man sama ngi ko defoon un million cent waaye ne ndekete un million dix mille francs la am ak ñaata fukki nag ak ñett treize ba ay ah, sa loolu baax na loolu moom wax dëgg yàlla waaw non ah yii nag ak na mu baaxee nga yar say nag ratta sa soow ak yooyu kon Seexu Juuf daal daa mel ni bilan ba su écrit su làmb ji continué woon dana gën a neex mais nag ma ma heureusement wala malheureusement ni la ko yàlla dogale corona ñëw na téye ko kon ñu koy féliciter ci lool mu jot a def muy résultat positif di ñaan yàlla saison prochaine rek làmb ji démarré normal ñu bëree normal ba ku ci rek nga bëgg a def nga def ko ci kàttan suñu borom. Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm fu réew mi di nekk di leen masawu baax ci mën bi di leen ñaanal eh, gudd fan ak wér xaalis su waaw loolu moom day am Aïssa parce que ay nit lañu rek te nit mooy juum te Aïssa ak Babacar mi toog fi dox wala Ndeye Coumba ak Babacar nekkul ne ñoom ñoo yore xam-xam bi wala monopole débat bi ñi ci biti xamuñu noonu non ñi ñuy seetaan des fois ñuy ëpp xam-xam sax su lu ñuy wax kon njuumte yi moom dañ leen koy jéggulu lépp lu ñu gis ne neexu leen ci biir wax ji rek bu débordé dañ leen di ballu ak di leen ñaanal jàmm di ñaan kani rek comme ni ñu ko waxee Sénégal yàlla jàmm di di di di jaale waa Géejawaay Daouda Seck ku ne xamoon ko ci biir e- géejawaay ak écrit yeeg mbëri ak nam faraan doxale yàlla jël ko ñu koy jaale waa géejawaay yëpp ñoom Balla Gaye ñoom Aziz Ndiaye ay Lac de Guerre Grand Moussa Fall képp kuy doomu géejawaay ba ci ndey géey yàlla na ko yàlla yërëm moom Daouda Seck xare ko aljana mais tamit di félicité ñoo xam ne dama leen naan reminage muy Abdoulaat Ndiaye bi ngeen xam tamit di manager nekk di coordonné ay promoteurs yu bëri moom moo doon takk soxna moom mooy maraw mu Lo moom tamit ñu ko doon may soxna waaw muy ko waaw waaw ay sa moytul de moytul de <laughs> Moussa ñaaday maa ngi ko gis muy yoot rek de mbaa te gaa non ñiy yoot ñoo gën a gaaw a takk ñaareel ñooñu nga gis noonu ñu sedd nii mais sama classe gu bëri wax gi mais ñiy yoot sanr Moussa ñaay ah waaw yàlla baax na jaajëf